asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 ni ñu baaxoo di ko defee ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h juróom-benn jàpp juróom-ñaar ñuy waxtaan ak yéen ci léppalu lu ñeel wàllu wérgu yaram tey ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Ndeye Fatou ndoy moom nag mu ngi nekk neurologue fi nga xam ne moom mooy ci hôpital Fann tey nag ñuy waxtaanee li nga xam ne moom mooy euh, épilepsie. dinañ ci dellu siwaat ci biir émission bi ci ni mu gën a yaatoo dañuy may rek balaa loolu suñu invité mu nuyoo ak mbokki auditeurs yi docteur ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay euh, Oulimatou di fay tamit euh, suñuy auditeur di wax ne waaw docteur Ndeye Fatou Ndoye neurologue neurophysiologiste. Euh, fii si hôpital Fann mhm. ba pare tamit euh, di saytu tamit euh, lépp lu nekk si wàllu feebaru épilepsie. Mhm. voilà ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak teew bi nga teew ci suñu émission. neurologie déjà nga expliquer ñu un peu mooy lan ci ni mu gën a yaatu pour askan wi gën ko gën ko xam. Mhm. waaw neurologie Oulimatou moom mooy en fait fait c'est-à-dire médecine la boo xamante ne ni spécialité boo xam ne moom mooy saytu lépp luy. yóor sidit ak euh, lépp daal lu ñu mën a àndal donc mën nañu wax ne yóoru nit ki la. ak euh, nit ki ci boppam. Euh, nan lay doxalee nan lay xalaatee nan lay jëfee donc lépp li nga xam ne mooy lekk. mooy xalaat mooy mooy même nooy sax loolu yëpp si yóor gi la la dépendre donc ñun. Euh, loolu la ñuy faj. Mhm. voilà euh, mu nekk kon lu am solo ndax nag buñ nee yuux ak xel ak yu demee noonu lépp ñu gis ni euh, kon loolu bu xasee ba jóge ci ni daanaka la des du bari kon ñu gis ne seen pàcc bi nga xam ne ci ngeen di yëngu mu nekk pàcc boo xam ne bu am solo la ci doomu aadama mhm. waaw moom bu xasee ba jóge si nit ki lu si ti jóge lu ci bari dina wàññeeku si nit. Mhm. effectivement lépp li nga xamante ne ni moom mooy intelligence. bu boobaa dafay xaw a nasax lépp li nga xamante ne ni moom mooy aussi lu aaju si nit ki di fonctionner normalement di dox di xalaat di di di di di en tout cas liggéey ak yooyu yëpp bu boobaa dafay euh, nasax moo xam si xale la moo xam si mag la même ba si ñu màgget ñi voilà pour dugg ci sujet bi ñu waxtaane li nga xam ne moom mooy épilepsie donc journée bi ñu ngi ko màggal ci deuxième lundi bu mois de février bi yàggul Euh, épilepsie mu nekk feebar boo xamante ne xam nañ ko xamuñu ko mun nañ ko waxee noonu euh, lan mooy épilepsie. waaw épilepsie moom euh, maanaam ñu ngi ko tuddee feebaru say. Mhm. feebar la boo xamante ne nii bu fekkente ne en tout cas fii ci Sénégal même ci biir Afrique mhm. dañu jàpp ne feebaru rab la. Mhm. waaye tubaab yi ñoom dem nañu ba gis ne feebar bi. Euh, am na am na explication am na nuñ ko mën a expliquer parce que tout simplement courant la boo xamante ne nii yuur gi noonu lay liggéeyee courant lay liggéeyee te courant boobu bu demee ba bare nit ki dina daanu def crise d'épilepsie waaye fii nii si Afrique ak si Sénégal dañu jàpp ne toujours rab la ba dañuy denc nit ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko amee mais feebar la boo xamante ne nii xam nañ ko xam nañ li koy indi xam nañ li koy faj te buñ ko fajee lu si bare dina wër. Mhm. Euh, li nga wax sànq dafa am solo nga ni feebaru say donc kon yàgg nañ ci suñuy réew di gis ay nit yoo xamante ne feebar bi da di dal ñu naan ay rab a ko jàpp ak ay jinne ko jàpp fekk ne feebar boobu la ñu koy sàggane fekk ne. fañ war a dem demuñu foofu maanaam mooy kër docteur. Mhm. loolu bare na. Mhm. effectivement feebaru say yàgg na si réew mi. te lu ci bare suñu tradipraticiens yi ñoom ñoo leen di faj. mën nañ leen téye lu yàgg yàgg yàgg di leen faj parce que dañuy foog ne dafa ànd ak jinne wala rab. wala leneen ak leneen mais euh, ñun en tout cas ñoo ngi def ay jéego pour que nit ñi di mën a xam ne euh, feebar bi feebar la bu ñu mën a faj feebar la boo xamante ne nii xam nañu lan moo koy causé te garab yi am na. te bu boobaa ku jël garab yi topp ko ni nga ko war a toppee yàlla mën na def euh, sutura bu bare nga mm-hmm. wër waaye say biñ fi rekk ba léegi nii nit ñi ñu si bare bare bare ñu ngi daanu ñoo ngi def seen i crise ñu ngi say ñu ngi leen teyee di leen yóbbu ci tradipraticiens yi fàtte ne ne ne hôpital tamit am na fi te am na si jéego bu wër jéego bu bare d'ailleurs sax parce que buñ ko fajee dana wër. Mm-hmm. Euh, épilepsie lan lañu mën a jàpp ne moom moo koy moo koy joxe. Oulimatou épilepsie li koy indi dafa bare. maanaam li ci bare dafa bokk ci euh, maanaam xale yi liir yi bu ñuy soog a juddu ëmb bi déjà dafa am solo ñu yóbbu ko normalement ba yaay ji di wasin normal boo xamante ne nii du am feebar du am complication léegi bu fekkente ne ëmb boobu jaarul yoon xale bi buy juddu dina am ay euh, gàllankoor yoo xamante ne nii dina ko dikkal ba nga xam ne yuur gi bu dina am problème su amee problème xale boobu dina am lu ñuy tuddee épilepsie mën na kaa am bu xale bi juddoo normalement bu ñu demee ba ci at yu jëkk yi yaram bi day tàng yaram yu feebar bu mu am moo xam dafa soj yaram bi tàng yooyu bu tàngee ba jéggi day wax mën na indi feebaru crise d'épilepsie te bu xësee ba def benn yoon crise dafay continuer di def crise ba buñ ko joxul ay faj noonu lay màggee. Mm. bu ñu paree si wàll googu si wàllu feebar yi nga xam ne ñoom ñooy dal xale yi bu ñu nekkee xale. mu nekk tamit si xale yi aussi bu ñuy màgg. daanu daanu yi mooy li ñuy tuddee traumatisme. Mm. mooy di daanu seen bopp yi di dal et cetera bu boobaa tamit bu ñuy màgg. dana indi li ñuy tuddee feebaru épilepsie. loolu moom mooy ñi nekk xale. mais tamit il faut ngeen xam ne Sénégal dañoo euh, lu ci bare dañuy def li ñuy tuddee consanguinité mooy sëyu mbokk. sëyu mbokk ni muy jegee dafay indi li ñuy tuddee ay anomalies génétiques si deret lay nekk donc xale yi bu ñu juddoo dañuy euh, en tout cas seen yuur day nasax te seen deret lay jóge bu boobaa tamit dañuy am li ñuy tuddee ay épilepsie te feebaru épilepsie yooyu neexut a faj. Mm. donc loolu mooy li nekk ci wàllu xale. bu ñu paree nag nit ki buy jëm mag lu tàggoo woon sa ba nga nekkee xale dana nuyoo se ba nga doonee mag donc bu ñuy xale di am ay fukki at fukki at ak juróom dem ñaar fukki at bu boobaa da ngay gis ne dañuy commencer développer aussi li ñuy tuddee épilepsie. Mm. bu ñu jëmee nag ba nga xamante ne nii mooy les adultes mooy mag ñi vingt ans jëm kaw. dafa am yeneen feebar yuy feeñ maanaam diabète tension ak leneen ak leneen loo xamante ne ni bu boobaa day indi épilepsie ak tamit accident yi am si si yoon yi si maanaam bâtiment yi ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéey si bâtiment yi et cetera. Mm-hmm. yooyu aussi day indi épilepsie parce que daanu daanu yu bare yi bopp yi di dal bu boobaa aussi day indi épilepsie. Mm-hmm. ñu daal di jël beneen fàll kii tamit euh, boo xam ne moom mooy les yi mooy lépp lu aaju si drogue alcole et cetera. Mm-hmm. tabac yooyu yëpp dafay indi après épilepsie parce que yooyu yëpp dafay euh, dem agir si yuur gi. te donc comme nee nañ la épilepsie feebaru yuur gi la bu boobaa yuur gi courant ba mu daan fonctionner day gën a yokk su yokkee nit ki si lay def ay crise mm-hmm. donc li ko mën a indi dafa bare. Mm-hmm. li ko mën a indi dafa bare et donc si àdduna bi daal dañuy wax ne nit ku ne ñun ñëpp. Euh, benn bés mën nga xëy nga def crise waaw ñun ñëpp nag mhm. euh, boo ko defee benn yoon ulimata defaat ko ñaari yoon bu boobaa dañuy wax ne am nga feebaru épilepsie heure boobu dañ lay commencé di faj mhm. faj boo xamante ne nii day jël diir laata moo wër mhm. mais daal nañu jàpp ne épilepsie moom Euh, kenn euh, jommul kenn. jommul kenn ñëpp la mën a daal. d'accord waaw. Mm. Ah, am na solo li nga wax ci cause yi nga xam ne moo ko mën a joxe kon tey loolu day wane ni bëri na loo xam ne nit ñi dañ koy réere mbir moom mooy surtout wàllu ignorance comme ni ma koy waxee. parce que tey gis nañu ay xale yoo xam ne dañuy daanu ci école yeek yu demee noonu ñu naan ay jinne may mun a yu demee noonu des fois mu nekk ay yoo xam ne se collectif. mu dalandoo ñu bëri. Mm-hmm. tey genre cas yooyu noonu fan lañ ko mën a situer. waaw bu fekkente ne maanaam comme li nga wax sànq nii loolu lañuy ñu tuddee hystérie collective. Mm-hmm. moom mooy dañuy ñëw ci école kenn daanu. jékki-jékki du yàgg keneen daanu. Mm-hmm. ba si yàgg ñu bare daanu. Mm-hmm. effectivement dañuy naan ay jinne may mu na la. wala leneen daal en tout cas yëfu rab. mais euh, il s'est trouvé lu ci bare si yooyu du sax épilepsie. lu ci bare bare bare du épilepsie. Mhm. bu ñu jëlee nit ñi ñi daanu ñun saa yu nekk bu amee ci ay école yu mu nekk bu buñ ko yegee dañuy déplacé wu dem. ci mhm. école ba xool parce que lu ci bare bu ñu defaree analyse xale yi lépp day fay normal. Mhm. te en général bu ñu waxtaanee xale yi bu baax a baax a baax de façon psychologique dina am lu bare lu ñu leen di gingi mais hystérie collective yooyu encore une fois du épilepsie. mais leneen la. loo xamante ne nii psychologiquement parlant la du rab mhm. du dara su fi que ñu waxtaan ak xale yi xool leen euh, dalal seen xel pour que loolu mën a deñ mhm. mais loolu du épilepsie tout le temps fu ñu ko saytoo en tout gisuñu fa loo luy nurox épilepsie mhm. euh, tey jii euh, ci seen ndaje bi ngeen amoon bu yàggul wax ngeen que nii lii di épilepsie mën na nekk loo xam ne mbirum ndono lay doon mm. waaw épilepsie mooy comme ni ma ko waxee sànq nii mm-hmm. dafa am épilepsie lu ñuy tuddee épilepsie génétique mm-hmm. loolu si deretu nit ki lay nekk mm-hmm. donc da koy doon na bu ko xale bi doon doonee mën na am yaay jee ko am wala papa ji en tout cas si deret bi. te en général ñi nga xamante ne dañoo sëy sëyu mbokk si lay gën a feeñ. Mhm. te bu boobaa bu feeñee ulimata euh, yooyu dafa nekk épilepsie yoo xam ne dañoo méttee faj. pour ñu faj ko day ñu faj ko dafay nekk lu jafe. Mhm. danañ joxe ay garab waaye xale bi mën na di continuer di def ay crise ba abadan. Mhm. wala ba toll si yenn at yi crise yi soog a arrêté. looloo tax en général ñuy wax ne maanaam sëyu mbokk luñ ko gën a mën a sorel mu gën a baax. Mm-hmm. mu gën a baax wala ñuy def loo xam ne moom mooy test prénuptial yi bu ko defee ñu xam. bu fekkente ne tey jii nit ki am na ko est-ce que foofu daal mën na tax ñu mën a xeex ci ci mbir mi. waaw xam nga côté boobu day xaw a day xaw a difficile. Mm-hmm. ulimatu pour def euh, le test prénuptial parce que tout simplement gènes yi nga xamante ne ni ñoom ñooy causer épilepsie dañoo bare. Mm. bu fekkonte ne lu aaju si wàllu ay drépanocytose xam ngeen yooyu feebar yi nga xam ne feebaru deret tamit lay doon. Mm. bu boobaa dinañ mën a def test prénuptial yi xool bu fekkente ne ñaari deret yi bu ñu booloo ndax doom ji fay juddu dafay am feebar bi bu métti. Mm. mais bu dee épilepsie bu fekkente ne dañuy def euh, test prénuptial yi euh, c'est-à-dire analyse yi mën na cher. mën na métti torop si en tout cas ñaan ñi ko séq mm-hmm. li gën daal mooy bu fekkente ne nag ñaan ñi ko séq ñaan ñëpp am ñu feebaru crise d'épilepsie mm-hmm. wala seen famille yi ñu am feebaru crise d'épilepsie bu boobaa mën nañ def test prénuptial yi mais li gën mooy effectivement ñu soreel ñu soreel euh, waaw sëyu mbokk euh, yi waaw loolu moo gën a gën surtout suñu contrée Sénégal yi en tout cas mm-hmm. daal fu épilepsie am mu nekk ci yaay ji nekk ci papa ji li gën mooy ñu soreel Euh, nu mu gënati sëy mhm. euh, bu weesoo li nga xam ne moom mooy say bi. parce que say bi je pense que moom mooy màndarga bi nga xam ne moom la nit ñi gën a xàmmee bu weesoo say boobu ban beneen màndarga la ñu mën a jàpp ne lii de bu ñu ko gisee épilepsie la. yi ulimata mhm. épilepsie dafa bare ay fànn mhm. na muy feeñee si nit dafa bare am na si épilepsie yu bare bare bare yoo xamante ne nii ñu ngi si nit ki ay ati ati at te kenn du ko xam ndaxte tout simplement bopp buy métti rek lay dikkal nit ki. su méttee nga naan say garab du sedd. Mm-hmm. nga dem tëddi mu ba ba mu am ay fan mu soog a deñ wala mu matee ay quelques minutes mu deñ loolu mooy bopp buy métti am na ñoo xamante ne nii seeni épilepsie day doon lu ñuy tuddee épilepsie partielle day am lu ñuy gis. Mm-hmm. c'est-à-dire hallucination visuelle day am lu ñuy janneer mel ni day am lu ñuy dégg wala mu mel ni seen yaram day am lu muy yëg. bu defee tuuti mu bàyyi mais bu koy excès tamit day fekk presque dañuy xaw a tàggoo un seen sago am na ñoo xam ne bu leen dalee dañuy jékki-jékki waxtu wax ay wax yoo xamante ne kenn xamul lan la donc yow ñi nga dëkkal dañuy foog ne kii ne dafa am problème wala kii de jënne dugg na ko wala rab dugg na ko donc yooyu moom moo gën a tax sax nit ñi di ko jéem a jegele ci ay rab. Mm-hmm. bu fekkente ne xale bi jàng am na li ñuy tuddee épilepsie absence dafa bari ci xale yi. xale bi buy jàng dañuy dem ulimata ba taxé ko ne dafa dëgër bopp parce que sooy wax ak moom parfois day mel ni xel ba dem na fekk bu xel bi demee en fait dafa def kiriisam heure boobu déggul xamul sax lan la nit ñi di wax. Mm. même bu dee biir classe la bu ko du kii bi instituteur bi di dicté day jékki-jékki taxaw dootul bindati ñu foog ne dafa dëgër bopp fekkente yow def na crise am wala nëx fekk mu ngi instant yooyu ci crise bi. Mm. crise bi nag day durer ay 2 minutes 3. donc bu jàllee xale bi ñëwaat si la mu doon def continuer la mu doon def bu ñu paree kaye bi boo ko xoolee nga gis ne ay pax pax pax la foo xam ne bindu fa nit ñi foog ne dafa dëgër bopp prof bi di dóor yaay ji di dóor kër ga et cetera fekk problème fekk lépp épilepsie la mm-hmm. bu melee noonu euh, il faut que au moins ñu communiquer comme ça nit ñi mën a xam ne yu épilepsie dina feeñee noonu feebaru say pour ñu mën a jël xale yi en tout cas mag yi yóbbu leen aussi euh, ñu dem hôpital comme ça ñu saytu ko. Mhm. voilà est-ce que bu weesoo loolu tamit euh, du am ay yeneen signe lu ci mel ni ay peut yaram muy tàng ak yooyu noonu daal ci ci yaram bi bu weesoo bopp bu metti bi. non yaram buy tàng en fait baaxul benn yoon. Mhm. mais yaram fu mu tàngee ulimatu dafa am lenn lu ko lal. Mhm. épilepsie du tàngal yaram. parce que du infection. mais bu fekkente ne am na infection si suuf beneen feebar. boobu mooy tàngal yaram te bu boobaa loolu mooy pousse tamit crise bi mu dikk mais épilepsie nekkul feebar boo xam ne day tàngal yaram. Mhm. yaram bi mooy tàng pour mën a indi li ñuy tuddee crise d'épilepsie. Mhm. donc yaa bopp buy métti bi yaa yaram euh, yaram bu tàng bi mooy indi crise d'épilepsie mais leneen lu ci bare euh, maanaam épilepsie daal jàpp nañ ne comme yuur la. Mhm. feebaru yuur mën na manifester woo feeñee si nit ki nu ne. lépp li nga xamante ne yuur permettre na ko nit ki def bu boobaa bu nekkee ci crise d'épilepsie da koy def. Mhm. moo tax baax na parfois population bi du ñu mën a ràññee. Euh, ne lii crise la mais bu demee ba jaaxal leen baax na ñu gàddu nit ki yóbbu hôpital comme ça bu ñëwee ni les spécialistes ñi nga xam ne ñoo koy seeti ñoom bu ñu xoolee def li war interroger parent yi et cetera dinañ xam ne lii crise d'épilepsie la bii façon fànn crise la ak neex neex nii lañ ko war a mhm. saytoo. justement ci loolu sax ci askan wi parce que tamit euh, kuy def crise épilepsie mun na ko dal fu nekk. te dafa bëri ay risque mhm. bu dee kuy jàngi la bu dee tamit da ngay dox say soxla mun nga nekk ci tali beeg feneen ak feneen mu dal la fa. Mhm. te yooyu peut-être amaana mun na trop tard. Mhm. tey jii parce que sénégalais dafa tàmm bu fekkee dara rek muy accident leneen la leneen day taxaw di xoole ñu ñëw wër la. Mhm. tey jii nii est-ce que amul peut-être benn premier soin walla premier secours plutôt sax laay wax. Mhm. lu ñu mën a apporter nit ki nga xam ne euh, mu ngi nekk ci wàllu ci épilepsie. waaw pour euh, ki nga xam ne da nga ko fekk muy def crise d'épilepsie. Oulimata li ngay jëkk a def moom mooy pousse lépp li koy gaañ. bañ ko bës. parce que am na ñoo xam ne bu ñu la fekkee ngay def crise d'épilepsie dañ lay jéem a nacc pour que nga bañ nga bàyyi sa crise au contraire dañoo war a pousse lépp lu lay gaañ bàyyi la nga def sa crise parce que crise bu xësee ba ñëw di commencé dal kenn mënu ko arrêté parce que courant bi bu xësee ba jàll si yuur gi yuur gi commandam yi mu war a def yëpp da koy commandé mm. donc lépp lu mu commandé nit ki dana ko def donc say bi heureusement guddul benn minute la ñaar ba ñetti minute dañoo pousse lépp li nga xamante ne nii mën na koo gaañ daal di jël lu mel ni morceau wala torchon wala ay mouchoir dugal ci gémmiñu nit ki pour que mu bañ a màtt làmmiñam parce que bu ñu booy def crise am na si ñoo xam ne dañuy màtt seen làmmiñ deret gi bare lool macha allah. Mm-hmm. bu fekkente ne aussi fekk nga nit ki mu tëdd si suuf di crise loo mën a am pour teg ko si bopp bi pour que du jël bopp bi di ko dóor si suuf si. Mm-hmm. boobu aussi il faut le fair donc daal lépp lu ko mën a gaañ rek dañ koy moytu. Mm-hmm. ba pare teg morceau si gémmiñ gi teg dara si suufu bopp bi xaar crise bi jàll bu crise bi jàllee ñu soog ko yëkkati yóbbu hôpital mhm. mais même instant yooyu sax jël ko di gàddu di dugal ci ay taxes di dugal fu nekk pour yóbbu hôpital mën nañ ko gaañaale parce que crise bi kiy def crise dafay bare doole donc daal ñun li ñuy ñaaxee population bi mooy ku ñu la fekk ngay def crise mooy crise bi nit ñi xam nag nga xam ne dangay daanu di fi taxu mhm. bu boobaa ñu pousse lépp li leen mën a gaañ teg dara ci sa bopp pour que doo mun a dóor sa bopp ba pare teg dara tamit ci sa gémmiñ morso la wala mouchoir pour que doo màtt sa làmmiñ mm-hmm. ñu toog bàyyi la sa crise jeex le temps que ñu lay yóbbu à l'hôpital wala sapeur di ñëw et cetera mm-hmm. li tax ma lay wax loolu dafa am benn anecdote bu ndaw bu ma lay raconter mm-hmm. mas naa di ñibbi sama kër daa di romb ci tali bi ma gis kenn ku daanu ci tali bi muy crise di jël bopp bi di dóor deret bi di tuuru ñiy romb ñëpp effectivement comme ñu ngi ko waxee ñu ngi koy xool di ko moytu. te mu ngi mu ngi si digg tali bi. Mm-hmm. di moytu mais ñun ñi xam da ngay xam ne lii crise d'épilepsie la donc dañoo gaare man maa fàttaloo ko ba ma gaaree. xëcc sama paquetu mouchoir sama oto dawse si moom bi may dawse si moom la beneen borom oto. Mm-hmm. gaare moom tamit ñëw di ma jàppale se. ñu ñëw feelu bopp bi ni mu ko doon dóoree si tali bi dafa métti dugal mouchoir si gémmiñ gi xaar ko ba ñu xaaree même pas une crise bi jàll na ñu jàppale ñu ñu wàcce ko tali bi donc yooyu c'est des euh, ay affaire la yoo xamante ne ni population bi mm-hmm. war nañ ko mën a xam parce que Oulimata suñu population jàngalu leen secours mm-hmm. te am na solo mm-hmm. ñuy euh, xam les premiers secours parce que balaa médecin di ñëw balaa sapeur di ñëw mën na yàgg te ñi egg juste si lieu bi war nañ ko mën a jàppale. na suñu tali yi baaxul embouteillage ak yooyu balaa sa pëx di ñëw fekk ne. merci beaucoup mm. donc en tout cas daal baax na ñu jàngale premier secours pour suñuy population. Mm. donc te loolu ñun la suñu rôle rôle en tout cas rôle ñëpp la. Mm. pour que ñu mën a jàppale population surtout que li may wax mooy kenn jommu ci. Mm-hmm. kenn jommul si feebaru crise mm-hmm. et que crise mën na ñëw fu ne. mën na la fekk si fu ne. Mhm. donc nañu jàngale premier secours. voilà am na am na solo euh, li nga xam ni moom mooy euh, wàllu say de manière générale des fois di gis ko xam ne say na kenn xamul épilepsie la ndax leneen la rab ak yu nu mu mënta doon mais lu ci bëri nit ki bu retrouver euh, sagom day mel ni ku fàtte crise bi nga xam ne moom la doon def. Mhm. tey ji est-ce que ki nga xam ne dafa épilepsie. cas mhm. ci cas boobu la nekk. waaw en général Oulimatou ku def fee euh, ku def crise d'épilepsie boo ñëwaatee ci sa xel da ngay fàtte ne defoon nga crise d'épilepsie hmm. am na nag ay euh, quelques crises d'épilepsie type yoo xamante ne nii nit ki buy crise sax da koy yëg hmm. mooy li ñuy tuddee crise partielle da ngay dégg ñu naan la moo ngi ñëw mu ngi kii mu crise loxo bi rek ñu koy gis walla tànk bi rek mu après mu arrêté mais crise bu mag a mag bi nga xam ne nit ki day daanu say crise euh, yaram bi yëpp fi taxu mu màtt làmmiñ bi parfois sax dafay tuur ndox mm-hmm. boobu nit ki bu si paree du fàttalu ko mm-hmm. parce que instant yooyu noonu euh, yuur gi euh, courant bi da si bare de telle façon que bu crise bi jàllee dootul fàttaliku ne mas na def crise mm-hmm. bu ko ko nit ñi waxulee moom du ko xam léegi ñun fii nit ñi fàttali nit ñi mooy tout temps dañ leen di wax est-ce que maanaam sa yaram diis na parce que après crise nit ki day nelaw Mm-hmm. nelaw bu mm-hmm. profond. léegi bu si jógee fi taxu olimata dafa métti. dafa métti muscle yi day ànd ak doole. non dañuy am doole mm-hmm. parce que muscle yëpp ku si nekk moo war a liggéey ni que en tout cas ni la yóor gi ne liggéeyal. te courant bi mu lay jox day bare bare mooy commande bi. day bare bare bare bare ba booy liggéey léppay contracté wu. léppay liggéey donc doole gi ngay bari noonu di dóor di yëngatu soo si demee ba crise bi pare léppay métti. Mm-hmm. sa yaram day diis sa yaram day métti sa bopp bi tamit day diis. Mm-hmm. donc ñu ci bare noonu la ñuy xamee en tout bu ñu leen si la ñuy xamee ne defoon nañ crise mais la plupart des cas ki crise tant que newoo ko def nga crise dalay wax ne noo defuma crise mm-hmm. donc am na ñu toog dëkk ñoom dong di def crise di jóg di dem te duñ ko xam parce que tout simplement gaañu ci maatuñu xëy na seen làmmiñ et cetera mais fuñ ko defee danañ xam ne après am na lu ñu defoon même ñu si bu ñu mënul xam lan la. doole boobu ngay wax la ñuy àndal sax euh, mm. peut-être doole boobu moo tax nit ñi di yaakaar ne ay jinne la ay rab parce que man am gis naa bataay ñoo xam ne dañuy euh, dañuy crise. Euh, mais da ngay gis ne doole bi ñu àndal ay punkal ñoo daan jóge ci classe bi ñëw di téye mais duñ mën dara ci ñoom. te lu ci bëri jigéen la daan nekk. <laughs> waaw c'est vrai que li ma li may wax nii jigéen lay nekk jigéen moom bu defee crise lu ci bare dañ koy euh, méngoole ak affaire de rab. Mm-hmm. mais épilepsie maanaam euh, xoolul góor xoolul jigéen. Mm-hmm. xoolul mag xoolul ndaw xoolul xale. xoolul kenn ñëpp la mën a dal mais doole boobu may wax. Euh, li li nga en tout cas li nga xam ne moo aaju si feebaru mhm. crise d'épilepsie maanaam euh, muscle yi la suux gi li science wane waaw li science wane muscle yi la suux gi ñoom ñooy contracté wu mhm. donc doole boobu dafay bare tellement mhm. que xëy na bés nit ki sax dañ koy gaañ dina nekk lu jafe te comme ni nga ma ko waxee dañuy woo ay ponkal fële ñu daw si bés nit ki pour mu bàyyi ni muy yëngatoo bu boobaa mën nañ ko gaañ gis nañ fi ba tàyyee ulimata ñu def crise ay nit ñëw bës la bu ñu paree ñu gis ne sa loxo damm nañ ko. Mm-hmm. wala sa tànk damm nañ ko wala même sa dënn damm nañ say ko et cetera. Mm-hmm. rëccal nañ ko donc moo tax daal li ñuy wax nit kiy crise puus leen lépp lu ko mën a gaañ bu ko fekkee si lal nañ ko wàccee si suuf ba nga xamante ne nii du gaañu ñu may ko mu def crise am. bu paree ñu soog a gàddu yóbbu hôpital. Mm-hmm. mbokk ba tey maa ngi fàttali ni yéen a déglu seen émission SOS santé ci Rewmi FM. 97.5 tey ñu dalal docteur Ndeye Fatou Ndoye euh, nekk euh, neurologue fi nga xam ne moom mooy hôpital Fann ñuy waxtaanee tey wàllub euh, épilepsie bu ñu jógee ci mandarga yi ñu gis ne Sénégal am na 300 000 doomu aadama ñett téeméeri junni ci ay doomu aadama yoo xam ne am nañ ko loolu quand même bëri na booy xool bëri na bëriwul waaw li mat bëri na sax bëri na mais il faut aussi ñu xam ne lim boobu ñu wax li nekk ci Sénégal ëpp na ko. parce que bu ñu waxee ñetti junni euh, nit. yu fee ñetti téeméeri junni yu am feebaru épilepsie nañu jàpp ne la fi am épilepsie ci Sénégal ëpp na ko. Mhm. ëpp na day wa mais ñis ñu ñu bare génnaguñu. Mhm. donc ñun études yi ñu def yëpp loolu la ñu jox mais ba ñuy def études yi tamit gis nañ ne am na ñu bare ñoo xam ne ñu ngi ci biir kër yi. Mhm. génnuñu ñu nga toog ca kër ya. egsee guñu hôpital. xam naa nag du ñàkk fi ay at bu ñu defaatee ay études. dinañ xam ne euh, nu mu tuddati ñaata la war a doom et yi ñu mujjee def euh, dafa toll woon si euh, bu ñu jëlee téeméeri nit yu ne fukk ba fukk ak ñeenti nit yi ñoo si am feebaru di épilepsie. Mm-hmm. waaye bañ koy def xam nañ ne bu baax ne. lim bi ëpp na loolu. Mhm. xam naa nag du jàggeen fii service de neurologie bu ñu defaatee beneen étude ci Sénégal gi yëpp danañ euh, amaat yeneen chiffre mhm. yoo xamante ne ni ñoom ñooy gën a en tout cas jege euh, lim bi. lim bi mhm. voilà euh, li nga xam ne moom mooy wàllub paj mi paj bi ci journée bi ngeen doon amal nee ngeen garab yi day jékki-jékki di manqué dafay manqué ci lu bëri. yi garab yi moom dañuy manqué. faj bi ci Sénégal. am nañ fi maanaam xeetu juróomi garab. yoo xam ne am na Sénégal buñ ko bindee ci ordonnance yi boo demee ci pharmacie bi di nga ko mën a jënd. donc loolu lu baax la parce que dina tax tamit euh, malaat yi di mën a faju waaye dafa def ne temps yi euh, et puis at yu si si ginnaaw tamit temps ah, bu ñu jëlee ñaari at ba ñetti at garab yi day manqué. surtout nag bi nga xamante ne nii moom la ñu feebar ñu bare ci feebaru épilepsie moom la ñuy jël da ngay xëy un jour garab bi manqué. garab bi bu manqué duñ ko am fen dañuy wër a wër ba sonn te garab bi il ulimata bu fekkente ne nit ki jëlul garabam benn yoon ñaari yoon yàlla bu defee mu def crise day mel ni la mu faj woon yëpp nul na ñu commencé waat à zéro bés bu amaatee ay garabam war a continuer donc buñ ko defee noonu day am ay fukki at wala lu ko ëpp nit ki di faju mm-hmm. mais garab bi daal nañu jàpp ne la muy manqué sax fii si Sénégal léegi moo ëpp sax li muy am. Mm. te nit ñi dañuy sonn pour wut ko. di nga gis ku jóge maanaam semaine bi passé rek ki may woo xaw ma Jurbel la ne xaw ma fan. Mm-hmm. dafa wër foofu yëpp ba mu jeex amul. mu ñëw Dakar wër ba sonn amul. donc mu woo ma man ne ma léegi nan laay def. Mm-hmm. man mënuma si dara. Mm-hmm. donc finalement damay ñun si boppam ñun docteurs yi dañuy désarmer saa di dañuy gis suñuy malaat yoo xam ne am nañu feebaru épilepsie feebaru say. commencé waat di defaat ay crise alors que demoon nañu ba nga xamante ne nii. ñu ngi waaj a wër. Mm. ñu commencé waat crise donc loolu lu lu lu réel la et là ministère bi ak euh, pouvoir politique yi rek ñoo ñu si mën a jàppale. Mm. ba nga xam ne en tout cas garab yi nga xamante ne nii ñoom ñooy pour euh, les pathologies chroniques ñu mettre ko à disposition. pour que nit ñi buñ ko soxlaa xam fuñ koy fekk ñu mën ko am. Mm-hmm. dégg naa waa PNA di wax ni dinañ assurer disponibilité bi fii ak euh, ba atum deux mille vingt xaw ma na ban procédé la ñuy jaar mais expliqué nañ ko c'est ay molécules ak yu demee noonu daal la ñuy daal lijjanti daal ba affaire yi mën a doy fekk 2021 <laughs> docteur loolu lan lan lan nga ci tontu. Ah, loolu moom li ma si mën a tontu mooy ñu ngi leen di jaajëfal. Mm. déjà ñu jël ay engagement pour mën a assurer loolu ba deux mille 2021. Mm. xanaa ñu ñort ci rek ne diggante bi euh, dinañ jéem a xool yan fànn. Mm. la ñuy jéem a xoolee pour amaat les molécules. pour que mille 2021 bu jotee aussi mu am une continuité. Mm-hmm. parce que ñun li ñu gën a soxal mooy la continuité dans le traitement. donc ñoom bu ñu assuré ne fii ba 2021 yàggatul fii ñaari at la. Mm-hmm. lépp dana sotti. mais j'espère que rek aussi ñoo ngi jël les devants pour que bu ñu jeexalee 2021 tamit ñu mën a permettre à la population sénégalaise mu continuer faju normalement et cetera parce que tamit ñoom loolu moom mooy seen seen rôle ak te loolu lañ leen fi tegee mm. est-ce que euh, garab yi jàppandi na ci nit ñi ci maanaam poos yi daal <laughs> ah, xam nga Oulimatou Sénégal moom mën nañu wax ne moom dara du jàppandi ci poos yi <laughs> euh, mais li si am mooy Euh, garab yi am na yu cher am na yu cherul. Mm-hmm. am na si par exemple benn boo xamante ne nii cherul matul sax ñaari téeméer. Mm-hmm. et pourtant euh, nit ki bu jëndee boobu ñaari téeméer weer wi mën na ko jël si weer wi te crise am day tane mën na dem sax ba wër. Mm-hmm. am na nag euh, yeneen yoo xamante ne nii egg na ba si juróomi téeméer ba si junni ak lu teg. am na sax boo xamante ne nii si ñaari junni la am na nag yeneen yoo xamante ne nii euh, maanaam egg nañ si ay ñeenti junni wala lu ko ëpp mais bu si nekk ak ku nekk li koy faj. Mm. ñun fii hôpital Fann dañuy fexe maanaam nit ki bu ñëwee li ñuy jëkk a def mooy commencer si garab yi nga xamante ne nii ñoom ñoo gën a oyof. si poche bi. Mm. mais ay garab yu efficace lañu nag bu nit ñi foog ne rek ne bindal nañ la garab bu oyof rek. mënulaa faj. Mm. dañuy saytu ba xam ku si nekk ban faj buñ la ko joxee di nga wër bu boobaa boobu lañ lay bindal si poos waaye tamit li ñu seetlu mooy bind nañ ba tàyyi garab même bu cherul bu mat euh, même biy jar téeméer ñaari téeméer parfois ñu bindal ko nit nit ñëw newaat la naanuma sama garab parce que aw ma woon lu ma ko jëndee si ñaari téeméer mm. xam nga loolu après finalement dañuy wax ne donc ñun suñu population suñu taux de pauvreté fan la toll. Mhm. est-ce que garab yi tamit bu fekkoonte ne mënoon nañu am subvention parce que ñaar mhm. téeméer cherul de. Mhm. donc ki nga xam ne du ko naan. ñu bu fekkente ne tam mënoon nañu am subvention ba di ko maye. ah bu boobaa tamit loolu moom mooy gën. ndax gis nañ fi ay feebar yoo xam ne seen garab yi dafa gratuit. voilà donc épilepsie en tout cas ñoo ngi xeex fi mu toll nii au niveau du ministère am nañ fa point focal. si nga xamante ne ni ñoom ñooy sooy saytu les maladies chroniques. dugal nañ ko ci. donc xam naa bu fekkente ne jéggi nañu dem nañu ba si biir xëy na dinañ egg ba nga xamante ne nii dinañ am ay molécules. Mhm. yoo xam ne dinañ ko mën a joxe gratuitement à la population. nga xamante ne nii ñoom ñooñu loolu mooy doon seen faj danañ ko am xam naa du mën a gratuit nag pour molécule yëpp. Mhm. mais au moins yenn yi xëy na ministère bi dina si am. ay gën a am feebar bi. Euh, li nga xam ne moom mooy euh, garab yi tey ki nga xam ne moom dafa am épilepsie. ñaata temps la koy jël ndax dafay jël traitement bi. ba ba muy wër. walla daal exactement nu muy nu muy demee. waaw traitement bi moom Oulimata da nga koy jël ba ba ngay wër. Mhm. mais traitement bi euh, pour nga wër mën na mat ñaari at ba ñett mooy bi gën a néew ci traitement. mën na dem ba weesu loolu. weesu parfois mhm. mën nañu dem ba fukki at wala fukki at ñaar. Mhm. nit ki wër mais mën na ëpp day ba mën na dem ba ñaar fukki at wala fanweeri at. wala sax am na ñoo xam ne dañuy jël garab yi ba abadan daayi man mais bu ñu jàppee ne daal li ci ëpp bu ñu jëlee ñaari at ba ñetti at jëm fukki at mën nañu wër completement ba fàtte ne mas nañoo def crise d'épilepsie mhm. te bu ñu seetee tamit euh, boo xoolee euh, téeméeri nit yu am feebaru d'épilepsie euh, juróom-ñetti fukk yi mën nañ leen faj ba ñu wër mhm. ba dootuñu naanati benn garab loolu aussi il faut que nit ñi xam ko est du ngeen am ay cas parfois nit ki dem ba ba ngeen jàpp ne kii de ah wér na mu toogaat ay at at daal di koy amaat est-ce que loolu day day faral di am. loolu moom day am. Hmm. day faral di am et sax bare na li muy am. Hmm. Euh, parfois ñun fii euh, bu ñuy suivre malaat bi parfois mu wër complètement ba ñu ne ko léegi baare nañ la mën nga dem. Hmm. bu toogaatee effectivement ay at mu ñëwaat. loolu li koy indi ulimatu mooy bu ma nee ci sama ci début bi. que épilepsie ñëpp la mën a dal kenn jomm ci. même docteur yi koy faj mën na leen dal. Mm-hmm. surtout malade nit koo xam ne mas na am feebaru épilepsie ba wër yuuram fàttaliku ne ne da daan courant moom bu baree rek da daan def épilepsie donc dafay am en mémoire loolu. nit ki bu toogaatee ba nekk ci yenn conditions yi parce que épilepsie aussi condition la. Mm-hmm. boo nelawul lu doy. wala sa yaram tàng torop mooy yama waxoon cause yi. Mm-hmm. wala nga daanu sa bopp dal fenn. Euh, wala nga feebar yenn feebar yoo xam ne day tàngal trop sa yaram épilepsie day ñëwaat. Mhm. mën nga defaat crise te boo si defee benn def si ñaar dañuy commencé waat traitement. Mhm. est que ay gaaw a ak yooyu mën na ko déclencher <laughs> ci ku ko am. ko am en général <laughs> en général. Euh, stress bi daa <laughs> bëri mhm. mais en général gaaw a mer euh, du déclencher crise d'épilepsie mais. après il faut voir lan moo nekk ci autour de mer bi. Mhm. parce que boo meree nga def euh, genre stress. Euh, après à mën nga am crise d'épilepsie mm -hmm. parce que en tout cas fii dama koy gis fii ci sama yenn malade mm donc li may mën a def mooy après damay waxtaan ak ñoom pour que euh, mer buy ñëw ñu jéem a xool nan lañ koy kiiwee parce que aussi boo meree xam nga épilepsie yuur la mhm. yuur bi la moom mooy liggéey donc stress day agir si yuur bi mer bi dootoo nekkati àndate sa sago te nit ki aussi bu meree am na yeneen euh, ay euh, en tout cas si yaram bi ay dérèglement yu fay am yoo xamante ne nii yooyu à la moom mooy mën a indi crise d'épilepsie mais nag du ñu wax ne ku am feebaru épilepsie kenn du la merloo mm-hmm. wala kenn du la xas wala kenn du la def nii. Mhm. li tax ma lay wax loolu pour fair la lien mooy da ngay gis benn papa wala yaay bu la indil doomam mu am faible crise d'épilepsie ñu ne la waaye bugguñu ko dóor bugguñu ko merloo bugguñu ko xas parce que fuñ ko xasee rek mu daanu. waa parce que da ngay dañuy xaw a dem tamit tuuti attention parce que nit ki bu xamee feebaram mën na parfois di ko créer boppam. mën na daanal boppam alors que du daanu normal. Mm-hmm. moom moo ko créer boppam. parce que tout simplement bëggul ñu xas ko mm-hmm. bëggul ñu gëdd ko buggul ñu def ko nii. Mm-hmm. mais en réalité ay xas ay gëdd ay mer du indi feebaru crise d'épilepsie. mais nit ki mën na ko créer nag. loolu c'est important parents yi xam ko. très important bu ko defee ñu mën a bañ a kii ci éducation xale bi. waaw parce que normalement ki am feebaru épilepsie dañ ko war a yar comme ni ñu war a yaree ki amul dara. parce crise bi ah un moment donné Oulimatou day wër nit ki mën a jànkonte la àdduna avancé day jàng normal vivre normal donc bu fekkee ne nit ki dafa am feebaru épilepsie ñu bàyyi kax sagoom bés bu demee ba crise bi di wër ah bu boobaa tamit dafay ànd ak sagoom rek mm. donc ñu yar xale yi bu ñu amee feebaru épilepsie bu mu tax ñu bañ leen a yar ni ñu leen war a yaree comme seeni morom te xam ne mer indiwul ki crise d'épilepsie Euh, gëdd taxul nit ki am crise d'épilepsie mhm. et cetera. Mhm. lan moo mën a nekk njeexital yi maanaam complication ci épilepsie boo xam ne nit ki dafa toog faju ko wala yu demee noonu. bon nit ki bu fajul euh, crise am li muy def mooy dana dem a dem a dem ba yuuram dootul fonctionner ti mhm. que crise yu bare si yoor day dem ba performance su sidit yi kii bi cerveau bi dootul normal. effectivement bu paree dinañ wax ne nit ki mën na nekk attardé surtout bu commencé crise yu teel a commencé bi nga nekkee xale da ngay am benn retard mental. Mm-hmm. même si jàng bi da ngay am retard scolaire ba finalement sax da ngay def li ñuy tuddee éviction scolaire mooy da ngay génn école dootoo jàngati. même bu doon alxuraan sax mën nga ko génn parce que dañuy naan crise yi day bare surtout que crise boo ko amee te fajoo ko day gën a di yokk. Mm-hmm. day gën di yokk donc da ngay dem a dem a dem ba nit ki mm-hmm. dootul nitee. donc loolu conséquence la bu mag a mag nit ki day dem ba dootul nite parce que tout simplement crise yi yuur bi amul temps pour jàng dara pour euh, maîtriser dara wala pour régler dara crise rek lay def. looloo tax dootuñu àndate seeni sago crise nag euh, si jeexintal yi mën na indi aussi ay yenn complication mooy en fait complication yi liéwul à la maladie mais dafay lié à euh, kii nu mu tuddati boo daanoo crise nga gaañu fenn. Mm. bu boobaa mën nga am ay damat ay gaañu gaañu mën na tamit dema dema dem ba crise yi bu baree fenn mën nga def genre accident et ces accidents là peuvent être mortels mm-hmm. donc mën na indi dee mais crise en tant que telle du rey mm-hmm. pour que nit ñi tamit xam ko du rey waaye boo fajul say crise mën na la indil ay crise yoo xam ne bu la fekkee si yenn circonstances yi mën na faat bakkan mm-hmm. tam tamit après xel bu di tamit. d'accord am na solo euh, lu jëm ci euh, chirurgie parce que euh, dégg naa ne c'est possible ñu def chirurgie ci certains cas d'épilepsie tey jo déjà est-ce que information boobu lu lu dëggu la. waaw loolu lu dëggu la. mën nañ def chirurgie sur certains cas donc sànq nii maa ngi doon waa bu ñu jëlee téeméeri nit juróom-ñetti fukk yi mën nañ leen faj ba ñu wër mhm. waaye des na ñaar fukk. ñaar fukk yooyu ulimatu am na si ñoo xamante ne ni ay candidat lañ pour ñu defal leen chirurgie mm. ñi ñuy defal chirurgie nag moom mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen di jox garab pour di leen faj waaye garab bi munu leen faj te seen yuur am na lenn loo xamante ne ni genre góom wala lenn loo xam ne bu ñu demee génne ko crise bi day arrêté ñooñu ñoom ñooy les candidats mais ñi nga xam ne ñi dañoo génétique mooy euh, crise yi nga xamante ne nii si deret gi la nekk du ñooñu la ñuy defal chirurgie. Mm-hmm. donc chirurgie dafa am ay fànn yu ñu koy defee moom mooy bu fekkente ni crise bi euh, nit kaa ngi jël garab yi garab yi mënatu ci dara mooy li ñu tuddee rebelle. Mm-hmm. épilepsie rebelle parce que euh, ulimatu yuur dafa nekk loo xam ne tant que mën nañu faj feebar ba fa nekk teg ubbiwuñ ko laaluñu ko mooy li gën. Mm-hmm. parce que yuur loo ci dagg am na loo wàññi si nit ki. loo fa intervenir am na loo wàññi si nit ki looloo tax dañuy jël pour épilepsie chirurgicale épilepsie rebelle mooy boo xam ne garab yi mënu koo faj jox nañu nit ki traitement yëpp yi am si àdduna mm-hmm. mënu koo faj bu boobaa ñu def ko am na yenn xeetu rajo yu ñuy def ba gis il faut ñu dem ba gis li nga xamante ne nii bu ñu demee génne ko nit ki day wër bu boobaa ñu defal ko ko mm-hmm. mais Sénégal gi excès fi d'accord excès gu fi mm-hmm. am na nag si àdduna bi commencé na am Afrique ah ñu ngi ñaan yàlla xam naa Sénégal du yàgg. Euh, ñu commencé ko fee def tamit. Mm-hmm. parce que nit ñi xam moom mu ngi fi. xam-xam baa ngi fi mm-hmm. mais dafay laaj ay moyens yoo yoo xam ne dafa diis. Mm-hmm. xam-xam bi mu ngi fi. mais après il faut benn ay moyens nit moyen matériel. yoo xamante ne ni dafa diis foofu eggaguñ fa. Mm-hmm. te ñu ngi ñaan yàlla avec suñu autorité yi euh, ñu egg fa si lu gaaw. Mm-hmm. voilà sànq docteur ci njalbeen yaa ngi doon wax affaire wu ndono ci li nga xam ne moom mooy épilepsie tey ki nga xam ne moom dafa am épilepsie nekk góor par exemple wala nekk jigéen peu importe tey moom bu waree sëy est-ce par exemple. du bàyyi xel ci peut-être partenaire ndax am na ko wala amu ko bu fekkee ñoom ñaar yëpp par extraordinaire am nañ ko ba lan nekk conséquence bi. ci doom yi waaw en général bu fekkente ne nit ki am na feebaru épilepsie. Mhm. effectivement li ñuy jëkk a def moom mooy dañuy xalaat ne est-ce que ñoom bés bu ñuy sëyee bay am doom moo xam góor moo xam jigéen est-ce que duñ ko ko wàll. Mhm. donc loolu day nekk frein même si seen évolution. seen vie. Mm-hmm. seen vie sentimentale donc mën da ngay gis parfois ñu toog du ñu marié parce que ragal nañu. Mm-hmm. li leen di dal dem dal seen i doom. Mm-hmm. léegi bu fekkente ne nag dem nga ba marié ba nga xamante ne nii doom nan na nan na juddu effectivement dañuy posé wu ñoom tamit des question est-ce que seen doom du ko am su ko amee est-ce que du métti est-ce que jar na kon ñuy am doom et cetera et cetera mais bu ñu tolloo foofu bu dee papa ji da ko am yaay ji da ko am y a des tests génétiques yoo xam ne dañ koy def. même bu fekkente ne ëmb bi la nit ki ëmb na am na ay tests yu ñuy def si en tout cas butitu njurukaay bi pour xam ndax lii dina doon épilepsie wala déet surtout que euh, ulimata épilepsie yooyu nga xam ne si ndono la koy jëlee. Mm-hmm. dafa nekk épilepsie yoo xam ne dañu xaw a doy waar. xale bi bu si juddoo mën na nekk xale boo xam ne xel bi du du du du normal. Mm-hmm. donc mais bu boobaa am na ay analyses effectivement yu ñuy def amuñu Sénégal nag. dañ leen di dañuy prélever yónnee pour ñu xoolal ñu leen. Mhm. voilà am na solo daanaka di des ci émission bi bëriwul mais tey ji dañuy dellu si ci peut-être journée bi nga xam ne def ngeen ko bu yàggul mooy mhm. journée épilepsie bi donc moo amoon ay waxtaan ak yooyu mais ba tey gis nañ ne askan wi peut-être genre émission yi ak yeneen ak yeneen samay morom ñu yooyu tax nit ñi mën a jot ci information yi mhm. mais gis nañu ba tey daal des na askan wi ni ñu waree xam feebar bi dafa des bu baax a baax. waaw loolu moom dëgg la Oulimatou askan bi c'est-à-dire euh, waxuñu leen euh, normalement euh, en tout cas lu ci bare pour feebar bi lan la nan lay dikkee et cetera waaye il faut ñu xam ne tamit depuis yàgg na war na mat léegi peut-être quinze ans bientôt vingt ans mm. yoo xamante ne nii ñoo ngi wër Sénégal pour yëgal nit ñi que feebaru épilepsie am na nii nii lay feeñe si nit mën nañ ko faj fiix fiix fii nga mën a dem donc mais comme li ngay wax baax na tamit ñuy génn ci émission yi pour ñaax nit ñi wax leen lan mooy feebar bi ak tamit pour jàppale leen comme ça ñu mën a ñëw à l'hôpital parce que feebar la bu ñuy faj mm-hmm. moo gën ñu leen di bàyyi ci kër gi la preuve euh, génn yi ñu doon génn moom moo tax sax euh, ci début émission bi bi ma lay wax euh, Sénégal Euh, téeméer yoo jël fukk yi wala fukk ñeent yi am nañ ci épilepsie waaye am na lu ko ëpp donc baax na aussi effectivement ñu génn di leen euh, ñaax di leen wax lan mooy feebar bi te xam naa ne am na nekk na ci suñu programme mm-hmm. parce que bu ñu xoolee chaque ñetti weer c'est ñun service de neurologie dañuy génn wër Sénégal day am benn dëkk bu ñuy tànn pour dem fa tàggat ña fay nekk di faj moo xam médecin moo xam infirmier pour si feebaru épilepsie si feebaru crise dañuy dem aussi si école yi pour aussi di expliquer xale yi lan mooy feebaru épilepsie ak metre yi pour que ñu xam ko parce que gis nañu ba tàyyee ay xale yu def crise d'épilepsie ñu dàq leen école alors que ki def crise épilepsie dafay fonctionner normal day màgg normal comme keneen ku ko defut mm-hmm. donc nañu bàyyi xale yi école ba donc ni koy defee ci école yi noonu lañ koy defee ci daara yi noonu lañ koy defee tamit ci ASC yi. Mm-hmm. en tout cas depuis bientôt maintenant quinze vingt ans ñu ngi koy def. Mm-hmm. xëy na ren ji suñu tànk xaw na néew tuuti ci dans l'ensemble du Sénégal mais dañ koy def saa su nekk pour mën a gingi nit ñi comme ça ñu xam ne feebar la buy wër. ku dem hôpital dinañ la wër te garab yaa ngi fi. Mhm. voilà pour terminer ci émission bi peut-être lan ngay dénk askan wi de manière générale mais aussi ñi nga xam ne dañoo am feebaru épilepsie pour ñu gën a mën a gérer daal seen seen feebar. waaw li ñuy dénk askan wi mooy euh, feebaru épilepsie ñëpp la mën a dal jommul kenn. Mhm. li tax may wax loolu mooy kër yi da ngay gis ku am feebaru épilepsie ñëpp daw la. Mhm. di la moytu. nañu xam ne ñu di moytu yàlla mën na def un jour ñoom si boppam ñu am crise d'épilepsie ñaanuma ko mhm. donc ñi nga xam ne dañu am en tout cas feebaru crise d'épilepsie nañ leen jàppale nañ leen jàppale insérer leen si société bi parce que si la ñu bokk mhm. buñ leen isolé bu paree nañu yóbbu hôpital parce que hôpital am na ay jumtukaay pour gis feebaru épilepsie bi am na ay jumtukaay pour faj crise d'épilepsie yi bu fekkente ne sax la loo xamante ne ni mënta wër danañ jéem a jéem a jéem ba nga xamante ne ni nit ki xëy na benn crise par année lay def boo xamante ne ni mënu ko wàññi dara te bu boobaa dina dund normal mm. en tout cas daal li may ñaax mooy tamit jigéen ñi nga xam ne ñooy ëmb nañuy dem di saytu seen bopp pour que ëmb yi bañ a am ay complications suñu doom yi nga xamante ne ni ay xale lañu ne ñu fexe ba nga xamante ni seeni yaram bu muy tàng moo xam dañoo socc moo xam feebar bu ñu mën a am parce que yaram bu tàng dafay indi crise d'épilepsie. Mm. population bi aussi nañu xam ne ñàkk nelaw dafay indi crise d'épilepsie parce que boo ñàkkee nelaw yuur gi courant bi muy produit day yokk. Mm. li ñuy wax ci boru nelaw ulimata mooy bor la bi nga xamante ne nii àla kuli da nga koy fay. Mm. xëy na yow ma yoral la mën naa la bañ a fay daw la mm-hmm. waaye boru nelaw. ku ko am boo ko fayul. bu yàggee jamono ji ñuy daw rek dañuy daw rek nelaw. <laughs> moo tax moo looloo tax nag ñu gën a seetlu épilepsie bare. Mm. parce que fàtte naa la ko wax épilepsie fii ci service neurologie. Mm. mooy ñaareeli cause bi indi nit ki mu consulter. Mm. soo xoolee bu ñu consulter ci weer wi nit bu ñu consulter téeméeri nit jàppale ne ña ca ëpp ñu ci bare épilepsie la à part AVC yi épilepsie la. donc médecin yëpp ku ci nekk boo xoolee li muy faj sa épilepsie jéggi na day wax te day laal xale day laal mag parce que nit ñi euh, informé wuñ leen à temps comme ça ñu mën a xam nañu wàññi daw bi tey nelaw nelaw bu doy wàññi tout ce qui moo xam kafe la moo xam ataaya la wàññi tout ce qui est important nit ñi di def sport parce que sport sax dafa baax si ku am épilepsie. Mm-hmm. dafay gën a yaax sa yóor te da ngay day gën a teel a wër aussi. donc à part ça après ñu wax nag ne nit ñi nañuy am ce qu'on appelle une hygiène de vie hygiène de vie lekk lu baax lekk normal mooy sucré moins salé moins gras. Mm-hmm. mooy bu mu boo nee lekk lu baax rek ñu yaakaar ne. ay yàpp ak ay fruits banaan pomme ak poire yu demee noonu alors que lekk lu baax aajowul ci foofu. non lekk lu baax moom ah. aajowul moyen bu rëy. Mm-hmm. aajowul lekk yàpp wala lekk dibi. Mm-hmm. lekk bu baax ulimata euh, moom mooy lekk lekk bu sain. Mm-hmm. lekk boo xamante ne ni barewul suukar barewul duulin barewul gerees barewul xorom. parce que yooyu yëpp dafay gàllankoor nit. donc lekk bu baax daal euh, suñu kër yi lañ fay lekk baax na. nañu wàññi suukar si xorom si diwlin gi. Mhm. wàññi yàpp yi di lakk plus suñuy jën di naan ndox mu bare di def spoor mhm. fruits yi nag loo am baax na. Mhm. dëkk bu nekk lafa am si ay fruits moo xam fruit sec la moo xam lu mu doon lu ñu si fekk nañ ko lekk. te xam ne baax na suñu yaram. ba pare ñuy yëngatu nag di def sport di nelaw lu doy. am na benn affaire bu ma la bëgg a laaj docteur balaa ñoo pare parce que quand même affaire épilepsie de say sax de manière générale dafa bëri ay. Euh, fantasme ak ay yoo xam ne dañ ko ci dégg dañuy mhm. fexe naan ay kuy def crise bu euh, gémmiñ bi fuureeg yu demee noonu bu la tufli bi dalee dalay wàll ak yu demee noonu daal waaw yooyu c'est des croyances mhm. nit ñi ñoo ko gëm moo tax mais dara nekku ci mhm. dara amu ci li tax ñu koy wax mooy ulimata bu doon loolu la ñun docteur yi faj am nañ bu yàgg crise d'épilepsie kon am nañ ko ñun fii ku si crise laal nañ la yuut yi laal nañ ko mm-hmm. même boo tuuree ndox ñoo la koy nettoyel mm-hmm. te du tere amuñu ko mm-hmm. parce que li tax ma la koy wax am na kër yoo xam ne kay crise épilepsie dañ koy ber du bokkat nit ñi bool bu bu crise yi lan moo tax Sénégal nit ki bu crise yi ñu lay bàyyi di la seetaan parce que ku si nekk xalaat nga ne bu la laalee rek wàll na moo tax loolu il faut que aussi waa Sénégal Ndiaye en tout cas loolu aussi si message yi la ñu xam ne feebaru crise d'épilepsie du wàlle nit ki nga dimbali ko du tax mu wàll la te dañ koy faj. Mm. kenn jommu ci nag. Mm. donc mais du wàlle. Mm. voilà c'est important. Euh, <laughs> fii la ñu émission bi docteur ñu may la nga tàggatoo ak mbokk auditeurs yi. waaw euh, xanaa rek di kontaan si émission bi. et puis euh, di wax ne j'espère que message yi ñu fi joxe dina apporter yenn euh, en tout cas enseignement yi et que nit ñi dinañ si gën a mën a sukkandiku pour xam lan mooy feebaru crise bi xam naka lañ koy moytoo et cetera et di ñaan yàlla tamit euh, di di gën a génn Sénégal pour gën a ñaax population bi pour ñu mën a aar seen bopp aar euh, population bi pour que yenn feebar yi nga xam ne c'est des maladies kronique nga xam ne faj leen métti na. faj leen gudd na ñu mën ko moytu. voilà ma lay jaajëfal bu baax a baax docteur Ndoye tey may fàttali ni ñu ngi doon dalal ki nga xam ne moom mooy euh, docteur Ndeye Fatou Ndoye nekk euh, neurologue fi nga xam ne moom mooy hôpital fànn ñu doon waxtaanee tey feebar bi nga xam ne moom mooy épilepsie di ko jaajëfalaat bu baax a baax docteur di jaajëfal mbokki auditeurs yi ñu doon déglu ci la cinq Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfal di leen dig daje ajuma bii di ñëw incha allah lu ko dalee 18h jàpp 19h beneen thème ak beneen invité ci réew mi FM cinq